feeñal sànq ba tey lool ndax ba sëriñ ba ne malaka ni maliki kullu jaan yi wa kullu masjidin minal ma jaan moom lañ ko fayee lii tey de képp kuy julli di wax allahu akbar boo paree am naa ci santas ki defar masinu u quelqu'un biton boobu am na ci dërëm hmm. fii koo saa boo jullee boo paree sëñ Tuubaa am na ci sa julli googu santas moom moo ko wax ndax moo ni ixraajuhu ila biladi naa iya wa naa la fiya fawqa samizariya hmm. dañ maa génne yóbbu ma ci réew yi alkande yi ci réew yi waaye ci laa amee nag lu gën a euh, sori déggu Zariega nii xaati bu nasaara tura damaa jàmbat rek sama nasaraan yi tura ñoom ñëpp fii ardihim ca seen suuf sa bu doon Sénégal ñooy daa jigéen mbokkam waaye dañu ca seen suuf sa laa jàmbaar la ñoom fii ardihim li maalikul mu ni leen tey xanu ne leen wóor na bi ànda ni lillaahi abdan xadiman li rasulillahi moo tax ñu fayee ko li moo tax mu ne li kulli man jumlatil axyaari martabatan lakk na ma ahmadal muxtaaru muxtaaru kuréel gu ne am nga foo féete waaye man Mouhamed laa féete moo tax ñun tamit Serigne Touba lañ féete ndax moom lañ bëgg ndax moo ne xaadal xadima ilaa na jaayi képp ko ma liggéeyal na nga ko def mu jiitu biix di iyaadi bilaa bukaay sama njaboot bu ñu jooy mukk baana lukku li mën huwa aqulu ana wasilatu huwa rasul kenn ku nekk di xool ca xam yor nopp di dégg war ngaa xam ne man ci yonante bi mooy sama wasila moo tax ñu topp ko nag lukku li mën biya temps laxa naja min kadarin dunya wa fi yawma naja képp koo xam ne wékk nga ma sa bopp mucc nga fii mucc nga yomal xiyam daani taafa nu fuusa man taallaqa biya dunya wa uxra zaaka fadlun rabbiya képp koo xam ne wékk nga ma sa bopp mucc nga fii mucc nga fee waaye loolu ndimbalu suñu borom la inna la si ba suruur yàq madu nag amaali si yet bu fa yàq képp koo xam ma yàlla def neexu la ah ci alkaate ngay képp ko am ni ma yàlla def neex na la ci cant rek ngay dëkk kon daal Serigne Touba moom yàlla nañu ko yàlla fayal rek gi nga nag numéro 4 dafa topp Serigne Touba chiffre 4 sëñ Mountakha bi mu ñëw la la ko teeroo 4000 personnes ñoko jëli woon. Uh-huh. moy egg si 1h04 ba 2h24 muy soog a wàcc. Uh-huh. Masaalikul Jinaan boko ko boko boo 5206 la. 5 ak 2 ak 6 13 la bo bindee 13 jël 1 bi teg ko ci 3 bi 4 lay doon. 1895. ba 2019 uh-huh. bi may waxe yow 124 ans la Mouhamadul Makki boko ko 124 moo la sorol bi ngay gis muy gudd ni 75 mètres la dunduk Serigne Touba la ci biir gis nga boko naté 28 la moy Alcorane alifun ba yaa alifun baawun taawun saawun jiimun aawun xaawun daalun saawun raayun saawun sinun sinun saarun doon saawun saawun ay ñun xëy ñun faawun xaawun kaasun laam limu noon baxoon waaw yaawun muy 28 moo tax maam Moussa Ka mu mën a woyo tënkal ko ni la nit ak juróom-ñett ay arafi Touba nit mooy ñaar fukk ak juróom-ñett arafi Touba dajee bisub altine wóor na boobaa la Seexu Bamba gonte daaru mar naan ba wee ko daaru salaam mooy ndaanaan kon daal nga xam Serigne Touba moom zéro fat apias doo daan waaw kon mbokk yi xam naa mbokk